أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين laqin lisaani waxlulan minhu luqat wajcalhu shaakiran wa zaakiran abad wajcal kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu nuyub lislaam bu tedd boobu di leen ñaanal jàmmi suñu borom bi subhaanahu wa taala yàlla na wàcc ci seen kaw ak yërmandeem comme ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bis bu ne di ànd ak yéen ci ay leçon wala ay dars wala ay bind yu tukkee ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju xadaa'il xaaj muy téere boo xam ne sëriñ bi daf ko yaxal ngir wone ci li nga xam ne mooy ay teggiin waaye ngir wone ci jëflante bi nga xam ne moom la doomu aadama yi war a jëflante ci seen biir ci ak wormaalante waaye ci ak joxante cër waaye ci ak respectante moo xam ñi nga xam ne ñoo féete ak mag wala ñi féete ak ndaw wala ñi maase loolu lépp sëriñ bi yaxal na ko ci biir téere bi ñu àndoon ci ak yéen ci ay bind yu xaw a takku ci bind yooyu rek la ñuy continuer ak yéen ba tey di sofe fi nga xam ne foom la foofu la ñu taxawoon ci suñu bind bu mujj rek muy fi nga xam ne fi la sëriñ bi radiallahu anhu di dénke nit ki muy wattu ganam waaye mu koy teral waaye mu koy won kanam gu leer waaye mu koy yaatal bu baax a baax a baax a baax nga xam ne ñi ngi taxawoon ci saraa bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon saraa di wax ne wala qihi na nga daje ak sa gan bil basasati ci ak belli wa talaaxatil wajhi ak leeru xar kanam fa xadd xiila dëgg-dëgg wax na innahuma naka ñoom wala dëgg-dëgg waxeef na innahuma naka ñoom ñaar de muy belli xarkanam ak leeru xarkanam xayrun moo gën minal xiraa ci ak bernde wa alayhi te ci loolu nag xawlu shaaciri waxi waykat bi ci loolu la jëm mooy bayit yi nga xam ne moom la la bëgg a indil mu topp ci saraa boobu mu ne bashaashatu wajhil mar'i bellik xar kanamu cemsi xayrun moo gën minal xiraa ci ak bernde fa kayfa bi man naka la ki nga xam ne yati day dikk bihi ca moom wa huwa te moom daa xiku aji reetaan la nee na bellik xar kanamu cemsi day bellik xar kanamu waaji day nee na moo gën fuuf berndeel gan nee na naka la ki nga xam ne da ngay ñëw ci moom mu gis sa bëñ gis sa xar kanam mu leer nañ ngay reetaan ngir mbégte ngay reetaan ngir kontante ngay reetaan ngir cofeel ci ñëw gi nga xam ne ñëw na ko ci yow di la gane si nee na loolu naka la def ak bernde maanaam loolu ni nga xam ne noonu lay dalale gan waaye ni nga xam ne noonu lay accueillir gan waaye ni nga xam ne noonu lay taxe ak gan ak nganam mën a neex waaye ni nga xam ne noonu la gan di yaatoo loolu lépp ci xar kanam rek mën nañ ko cee xame kon gan bu ñëwee ci kër na nga koy yaatale ci sa xar kanam rek ca lay xame ne kii bëgg na gan gi gane si ko wala gan gi nga xam ne moo ko gane si doonut loo xam ne lu ko gënal la kon wolof yi dañuy wax ne xar xanam de du kaso waaye koo ko tëjal mu xam ko kon sa gan bu fekkee ne dafa wàcc ci yow na nga fexey ba la nga koy jëkk a berndeele la nga koy jëkk a ganalee mooy na nga leeral sa xar kanam waaye na nga ko na nga ko accueillir waaye na nga ko teral ci na nga xam ne noonu lañu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam digale ci xadis bi nga xam ne moo weesu te dañuy wax ne ibtisaamatuka fi wajhi as-sadiq aw fi wajhi al-muslim sadaxa maanaam nga ree ci sa kanamu jullit wala muuñ goo muuñ ci sa kanamu mbokkum jullit loolu de dañuy wax ne sarax la loolu dañuy wax ne sarax la kon muuñ gi nga xam ne moom la nit ki di muuñ wala mu koy reetaan ci cofeel goo xam ne am na ko ci gan gu wàcc ci moom loolu lu ama am solo la lu nit ki war a bàyyi xel bu baax a baax la ngir ne loolu bokk na ci li nga xam ne mën na téye gan waxaala wax na aaxaru keneen udaaxiku danaa reeyal day fii sama gan xabla inzaali raxlihi la njëkk wàccuk tegam wayaxsibu tamiy naat indi ci man wal maxallu te palaas ba jadibun aji bekkoor la keneen it ci waykat yi wax na ne man de sama gan li nga xam ne moom laa koy teeroo mooy bala moo wàcc ca teguk fas ga nga xam ne moom la yéege wala bala moo wàcc ca oto ba nga xam ne moom la war wala bala moo wàcc ca waruwaay wa nga xam ne moom la war moo xam ne waruwaay wu man di doon nee na la ma koy jëkk a berndeere mooy dama koy reeyal maanaam damay muuñ ngir mbégte mu ma am ci gane si gi nga xam ne moom la ma gane si waaye ngir kontaante gu ma am ci gane si gi nga xam ne moom la ma gane si te gan gane si googu nga ma mu ma gane si damay jàpp ne luy naatal sama dund la waaye luy yokk ci man ak cofeel sama diggante ak moom la waaye lépp loo xam ne mooy bekkoor jàpp naa nganam googu mën na ma koo dàqal kon nit ki ni nga xam ne noonu lañ koy ganalee li ci jiitu mooy yaatal ko waaye leeralal ko saxar kanam bokk na ci di ko muuñ di ko reeyal di waxtaan ak moom waaye nag waxuñu ree ko ndax reeyal nit ak ree ko dafa bokkut nit ki mën nga koo reeyal ngir mbégte moo xam ne am nga ko ci jëf ji nga xam ne moom la def waaye nag ree ko moom xeeb ko lay nuru ree nit ki moom xeeb ko lay nuru kon waxut dinaa ko ree waaye dinaa ko reeyal la wax ngir lan ngir cofeel gu ma am ci moom waaye ngir mbégte mu ma am ci gane si gi nga xam ne moom la ma gane si mu ne walastu te déet man bi xawwaalin may aji wax isat dayfu ndeem gan ga xal la wàcc na bii ci man tarxal laxasal fa innal xayya ndaka dëkkuwaay ba de wala ndaka quartier ba de min ka ci yow xaribun aji jege la ne na man de bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy wax seeni gan naa koon su gan gi wàccee rek ñu naa ko yow de fi nga dëkk soriwut wala yow de fi nga dëkk boo bëggoon a ñibbi léegi mën ngaa ñibbi wala di ko wax ci yenn baat yoo xam ne day tax gan gi jàpp ne yow mii da nga koy xatal wala yow mii da nga koy siis ne na man de bokkul ma ci ñooñu nee na sama gan daal man bu wàccee la nga xam ne moom laa koy ganalee mooy di ko berndeel waaye di ko yaatal waaye di waxtaan ak moom ci lépp loo xam ne mën na koy bégloo waaye lépp loo xam ne mën na koo gën a yaatal waaye lépp loo xam ne mën naa tax ak ganam gën a gën a dal waaye nee na man bokkuma ci ñi nga xam ne kàddu yenuy jëkk a waxtaan ak seen gan rek mooy fi nga dëkk soriwut wala yow de soo bëgg na ñibbi mën naa am ñaar fukki minute boo ko doxee yegg wala yu demee noonu kon yooyu yëpp dafa jara moytandiku ndax mbir la moo xam ne day tegtale ne gan gii kat dama koy siis wala gan gii kat bëgguma nganam gii soppuma ci dara wala bëgguma mu yàgg fi wala yu demee noonu kon gan moom bàyyi ko rek ci sagoom waaye yaatal ko waaye bul ko wax jenn benn baat boo xam ne mën na koo mën na koo mën na koo tuuse wala mu laal li nga xam ne mooy ay sentiment am kon yooyu yëpp dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax mu ne manzilu naa suñu kër waxaala wax na aaxaru keneen manzilu naa suñu kër day raxbun aji yaatu la liman ñeel ka nga xam ne zaarahu siyaare si na ko nax nu ñun ñi nga xam ne ñoo fi dëkke sawaaun aji yemoolan fiihi ci kër gi wa taarifu ak aji wàcc si bees keneen ci waykat yi waxaat ne ñun de suñu kër lu yaatu la ci képp koo xam ne ziyaare si na ko képp koo xam ne daal ñëw nga gane suñu na nga xam ne suñ kër day lu yaatu la ci gan maanaam ñun suñu kër ku fa ñëw dañ lay yaatal ndax ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk di fa yeewoo ci bis bu ne ñoo ki nga xam ne mooy gante wàcc fa ca bis ba ñun ca jour ba mu fa wàcc ca bis ba mu fa wàcc nee na ñun ñaar ñoo ci yem képp ñun ñaar ñoo yem ci ñoo yem ci kër gi képp la nga xam ne moom laa fa sañ gan gan ga fa wàcc tey moom la fa sañ kon loolu li muy tegtale mooy yaatal gan goo xam ne dinañ ko yaatal gan moo tax mu ne suñu kër kon kër la goo xam ne gu yaatu la ci képp koo xam ne wàcc na fa ziyaar si ñu ñun day ñun ñi fa dëkkee ak ña nga xam ne ñoo fay gane si ñun ñoo yem képp ca kër ga kenn ëppalee fa sa moroom dara moo tax wa kul moo wax ne wa kulluma lépp la nga xam ne fii nekk na ca kër ga xalaalun lu dagan la lahu ñeel ko illa lazi ndare la nga xam ne xaramahu araamal na ko alxaaliqu yàlla mi nga xam ne mooy aji bind mu ne lépp loo xam ne day mi ngi ci biir kër gi gan goo xam ne wàcc na fa day lu ko dagan la maanaam lu ko dagan la mu jëfandikoo ko comme ni nga xam ne noonu la koy jëfandikoo këram waaye nag dare loo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala daf koo araamal kon dagan na mu def lépp loo xam ne suñu borom daf koo daganal tem ko doon def këram dagan na mu def ko ci fii nga xam ne moo am la wàcc si di fi gan waaye nag lépp loo xam ne suñu borom daf koo araamal moom loola moom suñu borom a ko araamal kon mu wàcc fi gan ak mu ñàkk fee wàcc gan ñoo ci yem fu mu man di nekk daf ko war a moytandiku ndax loolu terey suñu borom bi subhaanahu wa taala moo tax mu ne wala takun bul nekk fii kulli yawmin ci bépp bis taarikan ngay aji bàyyi taalluman xamlu summa summaamal topp na nga jëfe bihi ci moom xam-xam naasikan ngay aji jaam nee na bul nekk ci benn bis di aji bàyyi sàkku xam-xam bul bàyyi sàkku xam-xam ci benn bis nee na na nga sax ci sàkku xam-xam foo man di toll waaye it soo amee xam-xam ba pare na nga ko jëfe soo amee xam-xam ba pare na nga ko jëfe ndax nee na fal ilmu xam-xam day yox yi day dundal xal ba man xolub ka nga xam ne taallama jàng na ko te jëfe ko yu nawwiru day leeral alxal ba xol ba kama yejlu ni ko mu wuññee alama ak ngumba xol ngena xam-xam day mbir la moo xam ne day dundal xolub aji jàng ko waaye di ko jëfe noonu it noonu lay leerale xolub ki nga xam ne mooy jàng xam-xam ba pare di ko jëfe waaye noonu la koy wommate di ko jubal ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di digle waaye di ko xamal li suñ borom subhanahu wa taala di tere mu koy moytandiku bu baax a baax nee na comme ni nga xam ne noonu la xam-xam di wuññee ngumba xol nga xam ne day dindi ci nit ki ak réer noone lay dundale ab xol kon xam-xam lu ama am solo la moo tax suñu borom subhanahu wa taala di wax ne hal yastawi allazina yaalamuuna wallazina laa yaalamuun ñi nga xam ne ñoo xam ak ñi nga xam ne ñoo xamut ndax dinañ yem déedéet ñooñu duñu masa yem ci ba illaa yawmi diini ndax ki nga xam ne daa xam ni muy jëfee fu mu toll ci ab xam-xamam la koy teg di ko jëfe waaye ki nga xam ne xamul moom day dem rek di tañax tañaxi waaye du xam fan lay teg tànkam li muy jëf du xam du xam ci yan cëslaay la tege ci diine kon loolu tax mu ne ñi nga xam ne ñoo xam ak ñi xamut duñu yem mukk suñu borom bi subhanahu wa taala waxaan ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulamaau ne na jaam ñi de ñi nga xam ne ñoo ci ragal yàlla mooy borom xam-xam yi nga xam ne ñoo jëfe seen xam-xam bépp borom xam-xam boo xam ne jëfe na xam-xamam rek bokk na ci jaam yi nga xam ne ñoo gën a ragal yàlla kon suñu borom subhanahu wa taala lu jox lu ku jox yitte xam-xam la waaye ku jox dayoo ab xam-xam la moo tax mu ne waalam na nga xam bi annama naka bokk na ci la nga xam ne tafaawutu dana rawante alwara mbindeef ya bil alwara mbindeef ya yakunu dana nekk bil almi ci xam-xam wa diini ak diine fasbira na nga muñ nee na na nga xam ne nit ñi day li ñuy rawante li nga xam ne moom la ñuy rawante du askan wu rafet du judd bu rëy du sant wu rëy waaye li nit ñi di rawante ne na xam-xam rek la ak diine kon képp koo xam ne ñaar yooyu am nga ko na nga jàpp ne kenn rawula ci àdduna soo amee xam-xam ba pare di ko jëfee waaye xam sa diine ba pare di ko sàmm di ko jëfee di ko toppatoo di ko jëfee ni nga xam ne noonu la ko suñ borom digle ne na nga xam ne ñaar yooyu dong de ci la nit ñi di rawantee kon ku la ci raw moo la raw waaye ku la ci rawut jàppal ne lu mu kawe kawe ci ab aw askan wala lu mu kawe kawe ci aw sant wala lu mu kawe kawe ci daraja bul jàpp ne mukk moo la raw ndax ñaar ya nga xam ne moom la ñuy rawantee moom daf koo daf koo perte moo tax mu ne wa bihimaa ci ñoom ñaar ñooñu muy xam-xam ak diine yafdulu lay gëne man ka nga xam ne xad fadulaa dëgg-dëgg gën na laa bintisaabin déet ci aw askan liman ci ka nga xam ne xadiatalaa dana kawe nee na ñoom ñaar day mooy li nga xam ne ci la nit ki di gëne képp koo xam ne moo la ci gën day nee na moo la gën waaye képp koo xam ne gënu la ci ak lu mu kawe kawe ci wàllu askan nee na bul jàpp mukk ne moo la gën moo tax mu ne laa binti saabin déet ci aw askan liman ci ka nga xam ne xadiatalaa kawe na min jihatil ansaabi ci wàllu askan ummin ci ndey wa abbin ak baay faj texit na nga góorgóorlu fii himaa ci ñoom ñaar ma xatta addu bi ànd ak ab yar ànd ak ay teggin kon nee na ñoom ñaar ñu ñu nga xam ne moom la nit di gënee nit muy xam-xam ak diine ñaar yooyu nee na na nga ci sonn waaye na nga ci góorgóorlu waaye na nga fexey am ko te di ko jëfe nga boole kook ay teggin nee na loolu de boo ko defee nit lu mu rëy rëyu askan mënu laa ëpp daraja waaye mënu laa ëpp maqaama ndax ñaar yooyu ci la nit ñi di rawante kon ku la ci raw jàppal ne moo la raw waaye ku la ci rawut ak lu mu kawe kawe ak lu mu amee amee daraja bul jàpp mukk ne moo la raw moo tax mu ne wa in taallamta ndeem jàng nga fastain na nga dimmandikoo billahi ca yàlla summa bi ixlaasin topp ci ak sellal bi xalbin ci ab xol mutma in buy aji buy aji dal nee na sooy jàng daal na nga dimmandikoo ci yàlla rek na nga wéeru ci suñu borom bi subhanahu wa taala di dimmandikoo ci moom ngir xam-xam boobu ngay sàkku waaye it na nga ca toftal ak sellal te xam ne sellal lépp loo xam ne wéet na ca maanaam lépp loo xam ne ak sellal amu ca jëf jooju suñu borom bi subhanahu wa taala du ko du ko nungu kon xam-xam bi nga xam ne mooy jariñ borom mooy xam-xam bi nga xam ne daf koo sàkku ba pare sellal ko waaye bi mu koy sàkku jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek moo tax mu ko doon sàkku moo tax mu ne wa bi mulazamati darsi ak ci taqoo bind ba muy njàng ma wa waraa akuk sàmm wa xillati naw mi ak niiwu niiwi nelaw wa xillati shiba ak niiwug regg fa dum na nga sax arab darsi ca bind ba maa takraari ànd ak ak baamu fii maa ca la nga xam ne xaratahu jàng nga ko bila idbaari ci lu dut ak dummóoyu ne na kon na nga taqoo bind ba nga bind boo bind rek ba jël ko tey jii muy bind bu bees ci yow nee na na nga taqoo ak moom waaye na nga na nga sàmm na nga niiw ay nelaw te niiw ak regg te bind boo xam ne jël nga ko muy bind bu tooy na nga fexey di ko baamu di ko baamu di ko baamu bañ koo bàyyi ngir lan ngir mu mën a sax ci sa bopp ngir mu mën a bokk ci li nga xam ne dina des ci sam xel nga mën koo jëfe waaye bul jàng mukk di ko ginnaawal wala nga jàng ba sonn ca mukk wëlbatikuwaat di ko sàggane ba mu lay fëtt wala yu demee noonu nee na loolu lépp nit ki war na koo moytandiku bu baax a baax ndax xam-xam dafa bokk ci ñaar yi nga xam ne moom la la wax ne ci la nit ñi di rawantee kon loo ci sàkku ba am ko rek bul ko sàggane mukk waaye na nga def sa kem kattan ba wattu ko waaye na nga def sa kem kattan ba peeg ko ngir wattu ga nga xam ne moom nga koy wattu ca nga koy mën a téye di ko jëfandikoo ci kem ni nga xam ne noonu la ko suñu borom bi subhanahu wa taala bëggee kon dañuy tuub bu baax tey jéggulu di wàcce foofu suñu kàddu di wax ne in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته